on cru que ne affaire bi dafa day boo ñu dem le lendemain affaire bi nag ci la mel ni lu ñu xabtal mu commencé nag di defay affaire demb j'étais la là ñëw naa fi demb déglu ko mais man li ma gis muy direeku dégg ko muy direeku gisuma ko teguma ko bët li ma dégg muy direeku man man dragon la ci man.